salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam se ne moom lañ tuddee xam sa waay xam sa waay nag ki leen koy defal mooy Mame Fatou Kébé ma ci ànd a xam tey kan mooy seen waay tey kenn doon dañ ko présenté ndax xam ngeen ko muy doomi Serigne Sidil Makhtar Mbacké moom la ñu daal di dalal tey ci a sekk ak moom ay waxtaan yu yaatu waaye laata waxtaan yooyu tamit dañ koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo nuyoo ak point com ñu soog a dugg suñu waxtaan sa Djily maa lay nuyu salaamaaleykum rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ci dalal gi ngeen ñu dalal ci fii ci 24 actu di leen gërëm di rafetlu invitation bi. Mm-hmm. merci beaucoup ngeen dégg ko noonu sëñ Jili ni mu daal di nuyoo ci nuyoo bu am solo euh, sëñ Jili boo ñu doon wax tey kan mooy sëñ Jili lan nga daal di wax. waaw xam naa wax leen kan mooy sëñ Jili moom du xaj ci émission bi waaye ma tënkal leen. Mm-hmm. def li ñuy wax introduction rek. Euh, boo xam ne bu gàtt lay doon sëñ Jili doom la si Sidi Moxtaar yàlla dogal moo ngi jàngee daaru marnaan bu sëñ si xaw bal alxuraan jàngi jurbel xam-xam waajuramu jigéen tudd soxna fari yaali sama liggéey nag li ëpp ci samay euh, liggéey euh, li ci ëpp doole mooy nekk ci waaru sëñ Tuubaa li ñu tuddee xidma te loolu maa ngi koy defale sëñ bi ci euh, njaareem ak li ko wër ak ci yeneen gox goxaan yi waaw loolu daan laa man tënkal ci euh, introduction bi maa ngi fa jàngi xam-xam jàngi ko ci daare sëñ Bass Dieng am naa tamit baccalauréat ci euh, école sëñ Cheikh Gaïndé Fatma baccalauréat arabe ci lycée sëñ Cheikh Gaïndé Fatma bi nekk Diourbel Euh, ndax ba tey mën nga ñëw dellusiwaatal tamit ci sa parcours. parcours. Mhm. mooy lan. waaw comme tey jii sa njiir yi ndax maanaam mën nañu wax tamit euh, maanaam fan la daal di jàngi alxuraan comme que doomi soxna la. waaw alxuraan nee naa la daaru ma naan ba suñu Seexaw Balla laa ko jàngi. man moo kan moo la jot a jàngal. suñu bas jàng moo ma jàngal alxuraan. Mhm. suñu bas jàng moo ma jàngal xam-xam. ñaari suñu bas jàng yooyu nag ay mbokk lañ. kii dafa féete njaareem kii féete daaru ma naan ba suñu Seexaw Balla. Mm-hmm. waaw waaw ba tey sëñ bi tamit bëgg nañu dikkaat tamit ci ndax sëñ bi jàng na li xam si ne moo di eh, wala kii noonu nañ koy waxee jàng na tubaab tubaab moom xanaa fortaatu rek waaw fortaatu daan bëgg a wax mm-hmm. si suñu soxla wax ko waaye nag mm-hmm. tooguñu si banque di ko jàng ah, ndax sëñ bi tamit eh, bi mu nekkee ndaw jot na jaar ci li nga xam si ne moo di njàngum métier mm, métier moom xanaa eh, ñu ngi koy soog a commencé nag maanaam comme ci wàllu opérateur économique bi ñuy def. Hmm. wàllu euh, nu ñu koy waxee te procès yi ñuy def. Hmm. benn ci dama ko publicité sax télé bi ñi nga xam ne moom koy waaye koy waaj taxawal. Hmm. ak euh, wàllu élevage beeg wàllu mbay mi. waaye yooyu moom actuellement bi ñu jàngee ba pare. taxawal nañ projet yooyu yëpp ak internat tamit bu nekk Jurbel boo xam ne. ñu ngi ñu ngi ci daan di ko liggéey pareegul. Mm-hmm. xam naa ba tey loolu sëñ bi dinañ ci dikkaat ñu bëgg tamit xam sëñ bi kañ nga daal di installé wu fi nga xam si ne moo di Njaareem. Njaareem maa ngi fa dem 2000 2000 laa fa dem. Mm-hmm. am naa fa ñaar fukki at ren. Mm-hmm. bi ma dem jàngi xam-xam moo fa yóbbu waaye bi ma demee ba jàng ba noppi nag dama fa doon créer ay daayira. di fa xidma di liggéey ci waaru suñu tubaab bi. dem ba féetale ma fa nag sëñ bi dellu ma fa sëñ Sidi Muxtaar dellu ma fa ma féete fa. dem ba am fa mbooloo dem fa am fa ay daara dem ba am fa ay nit sama niti bopp loolu may sababu sama nekk njaareem waaw ba tey sëñ bi bëgg nañoo xam tamit lan moo tax njaareem ndax gis nañ ne sa waajur wa euh, dafa mel ne daf ko tàmm woon ndax euh, ne kër gi nga xam si ne tamit euh, moom la fa daal di jëndoon dane woon da koy barkeeloo ci suufu si njaareem hmm. muy kër googu ndax mën nga ñu cee dikkaatal waaw kër googu moom noonu rek la demee ni nga ko waxee ndax dafa dem ba am yëg-yëgu ni njaareem suuf suñ barkeel la moo tax ñu tuddee ko Boqantul Mubaarak mhm. kër gi fi mu ko amee mhm. mooy Medinatu Boqantul Mubaarak mhm. moom ak kër Sëriñ Tuubaa gi kër gu mag gi ay 500 mètres rek lañ sorente mu ne woon tamit bi mu koy jënd da koy barkeeloo ci suufu si njaareem loolay sababu sëñ bi jënd ko bi mu ko jëndee tamit ñëw na fa ñaari yoon ngir wisit ci kër ga ak it nemmiku fa yenn mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk njaareem bi nag maanaam doyal ñu fa. ñu mhm. ñuy wéyal liggéey bi. waaw mu loolu mooy sababu. Mhm. kër gi da koo jëndal ngir barkeelu suufu si njaareem waaye tamit bàyyi ko fu mu nekk këru alxuraan. Mhm. këru diine këru lislaam ndax mën nga ñëw dikkaatal tamit eh, ci sa diggante askan yoo xam seen tamit ñoo foofu ci njaareem. askanu njaareem moom eh, nekk mu rafet laa nekk ak ñoom. ndax foo am ñaar fukki at. dafa yu am solo yoo xam ne duñ la xeeb te loo woote ñëpp jóg yaakaar naa bu nekkin wa rafetitoon loolu dana jafe wala mën naa fa bëgg a jóge sax ngir dëkkiin wax at wu ma dëkk ak ñoom mm-hmm. waaye yàlla dimbali na ma ba ma nekk gi nga xam ne nekk naa ko ak ñoom mm-hmm. dama cee sant yàlla ndax waxtu nekk cofeel day yokk ci sama diggante ak ñoom mm-hmm. ànd bi day gën a dëgër eh, jëflante gi tamit ci wàll wu nekk ci fànn ku nekk day gën a yaatu ci ci côté bu nekk. waaw mhm. ah, sama dëkk nag waa Jurbel moom. Mhm. alhamdulilah rek alhamdulilah rek lay wax. Mhm. Ah. macha allah ngeen dégg ko noonu muy Serigne Djily Mbacké Maty lay moom la ñu daal di dalal tey ci jotaay bi ah, waaye sëñ bi tamit bëgg nañoo dikkaat tamit ci say projet yi xam se ne tamit taxawal nga ko ndax mën nga ci mën nga ñu cee dikkaatal. waa projet yi moom mooy ni ma la ko waxee sànq dama taxawal lu toll ñetti projet yi ci ëpp doole. mooy wàllu internat bi. xëy na du ñàkk ngeen mos faa ñëw def benn benn kii émission waaw mm-hmm. waaye comme liggéey bi dafa dañu nekk en chantier bàyyi mm-hmm. bu yeggee ñu mën a dugg ci loolu bu baax a baax mm-hmm. loolu rek benn la ci projet bi muy daara internat yoo xam ne bi fi sëñ bi jënd kër googa maanaam dafa war a ànd kër ga ma xalaat ni comme sëñ bi da koo barkeel woon ci suuf si njaareem daara ji man maa koy defar man sama jëm bopp maa koy defar def ko addi sëñ Sidi Muxtaar mm-hmm. def ko addi diine def ko addi lislaam mm-hmm. ngir xale yi nga xam ne mm-hmm. maanaam ay tout tànk lañ maanaam man di fa jàngee moom dama ko bëgg a moderniser nag maanaam daara du daara joo xam ne euh, daara yi ju yàmbambaay rek lay doon dama ko bëgg a moderniser ba nit ñi nga fay jànge nekk en bon condition ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu fànn yépp waaw loolu laa bëgg bëgg xemmem loowaat xale yi diini bëgg xemmem loowaat xale yi lislaam bëgg leen a xemmem loowaat alxuraan loolu tax ma bëgg def daara internat boobu insha allah rabbi xanaa xëy na balaa matati ay huit mois wala ay neuf mois daara ji dana tàmb daara ji nekk ñu ngi njaareem ci sama wetu kër ñoo taqaloo waaye moo kër gi ñoo taqaloo daanaka ñoo bokk benn miir ñoo jëlloo liggéey baa ngi sori waa liggéey bi ñu ngi sori. waaw ba tey ndax mën nga ñëw dikkaatal tax ba xam ci daara ji rek moo fi gën a taxaw wala ci projet yi. projet yi lépp ay demandoo parce que projet kii boobu ma lay wax. ñi ngi ci moom it xëy na am bokk ci yéen ñoo xam ne waxtaan ak waxtaan ak ñoom it. dafa am kii bi ñu di ko. ci dox benn dox wax ni ba mu gën a mën a yombal liggéeyam ñu jaaree ko foofu loolu moom am euh, nag yu ci bëree bëri sotti na ñu ko liggéey ñoom rek lay xaar ah, looloo ci des mm-hmm. ndax lu muy doon site internet site internet lay doon wala télévision lay doon waaw en attendant nag dama ko bëgg a def mu nekk en ligne mm-hmm. comme ci euh, compte YouTube comme ligne rek ci mm-hmm. Euh, Facebook beeg page Facebook beeg. Mhm. lépp loo xam luy Twitter Twitter beeg. Mhm. Instagram beeg yépp daal loo xam ne day jàllale li nga xam ne bu jëm. Mhm. ci média boo xam voilà loolu daal lañ koy defagun en attendant ba gis liggéey bi. bi mu am. ñu soog koo nag euh, jàllale ci euh, tele ndax am na. am na am na ti am na am na nu ñu koy waxeeti. ak dina am télé dina am rajo incha allah. pour wilaay bañ a tudd waaye dana am télé dana am rajo rajo bi moom incha allah du yàgg. waaw rajo bi moom du yàgg moom mu commencé mais affaire télé. Mhm. day loo xam ne du jékki-jékki rek. Mhm. songe ko noonu te personnel bi nga xam ne ñoom nga bëgg waxtaanal pour ñu commencé liggéey bi. Mhm. Euh, yëmbagul lool lool xamagoo seen i jikko Euh, kiyaguñ ci loolu daan maanaam sóobooguñ ci duñ sóobooguñ ci loolu xamagoo ni ñu ciy tàbbee. Mm-hmm. def ko en ligne daan en attendant ci kanam. waaw ñu soog koo ñu soog koo médiatiser def ko télé incha allah bi. Mm-hmm. sëñ bi ba tey gis nañ sëñ Jili dafay daal di def ay tournée yoo xam si ne tamit da koy def ci bitim réew. Mm. ndax mën nañoo xam tamit tournée yooyu tamit lan mooy sabab bi. waaw tournée yooyu li ko sabab mooy journée xasida yi nga xam ne dañ koy amal ci bitim réew. ñu mm. ne ak Italie. ak euh, Allemagne euh, Danemark ak ak ak ak ak Suède waaw maanaam loolu mooy sababu dem bi ñaareel bi mooy dem fa nemmeeku mbokk taalibe ya fa nekk xool jafe-jafe yi ñu am yi ñu leen ci mën a taxawoo ñu taxawal leen taxawul taxawul leen ci ci mbirum mbirum baatin bi mbirum saahir tamit ñu taxaw ci dimbali leen toog diglu leen seen xalaat ci lépp loo xam ne jafe-jafe la bu jóge ci ñoom boo ko defee loolu buñ ko xamee liñ ci mën a saafara muy foofa ñu saafara ko li ñu fi mën a saafara Sénégal ñu ñibbisee saafara ko loolu waaye li ci ëpp solo mooy dem fa di leen waxtaanal ci diine ji di leen jubbanti di leen di leen di leen nemmeeku daal ci wàllu diine di leen xamal ak surtout ci wàllu social ndax ñi nekk foofu parfois dañuy am ay jafe tuuti te bu nekkee ci jafe-jafe kilifaam rek la ci yaakaar mhm. waral génn yi ñuy génn li ci gën a ëpp solo ci ñun ci fànn boobu la maanaam fànn social bi fànn dimbali leen ci seen wàllu surtout seen wàllu diine waxtaan ak ñoom ci lu aju ci wàllu nekkin nekkin yi jafe-jafe yi ñu nekk foofu waaw ak jàppale leen ci seen mbiri diine jàngal leen bu ñu aajowoo ay ñaan tamit ñu ñaanal leen ci sunu kéemtalaay kattan waaw ndax projet yi ngay taxawal fii am na foofa yaa ngi koy taxawal foofa wala benn projet nag laa def mu nekk projet international mooy sama mouvement bi ñu tuddee 100 pour cent à l'aise avec Bamba mm-hmm. waaw boobu c'est international mm-hmm. boobu dama ko def mu nekk benn programme boo xam ne comme social la mm-hmm. euh, dama ko yaatal mu nekk euh, lu yaatu loo xam ne ku ci nekk ma ca tabal loxoom am na ay représenté France am ko yeneen dëkk yeneen dëkk ci àdduna bi yoo xam ne damay waxtaan ak ñoom wax leen jëmmi mouvement bi li ko tax a jóg xëy na boo tàppee 100 pour cent à l'aise avec Bamba ci YouTube wala nga tàppee ko Facebook da nga ko gis boo demee da nga gis programme bi ni mu tëddee voilà boo ko defee loolu daan moom laa gis loo xam ne dafa nekk international national ak international mi ngi dox ci réew mi di dox biti réew ndax yaatu na réew waaw yaatu na yaatu na lool sax ndax euh, am na France am na Espagne am na Italie comme dëkk yooyu may jaar yëpp damay def bu may dem yi nga xam ne ay carte membre dama koy yóbbaale ñi nga xam ne bëgg nañoo tàbbi ci mbir mi bëgg ma représenté foofu ma jox leen ko ku ci barkeelu jënd ci jënd ci carte yooyu waaw. sëñ li ba tey gis nañ doomi soxna yi tamit dañuy faral di yëngu ci wàllu mbay ndax sëñ bi tamit dina yëngu ci wàllu mbay. mbay bu baax a baax a baax moom laa lay wax ni sànq. Mhm. waaw maa ngi yëngu ci wàllu mbay dama am benn daara bu ñuy wax Touba Dieye. mu ngi ci wetu Mbacke Dior. Mhm. digganteem ak Mbacke Dior la. Mhm. waaw fa lay bayee eh, mbayum nawet. mbayum noor tamit commencé guma ko waaye maa ngi koy maa ngi def projet bi pour xam dëgg-dëgg euh, mbayum noor nan lañ koy defee ndax yu ci bare bari bala nga ci dugg nga ci war am xam-xam waaw waaye fi ma gën a concentré wu moom mooy ci wàllum wàllum wàllum wàllum mbayum nawet moom waaw xam naa it am naa daara tamit duñu nekk joo xam ne lu tolloog ñeent fukki donga ña nga fa di jàng daara jooju waaw hmm. sëñ bi mu mel ne ci ay jamono tamit gisoon nañ la ngay jaam ngay jàppale ki nga xam se ne moo di Pape Diop ndax sëñ bi Djily yëngu ci li moo di politique Pape Diop man ma mosumaa jàppale kenn am naa ay xarit nag mm-hmm. waaw mosumaa jàppale loolu bindoon nañ ko sax ci internet bi mm-hmm. loolu nga wax noonu mm-hmm. mas nañ ko bind internet mais damaa xëy suba weddi ko ndax mosuma jàppale kenn kenn kenn kenn waaw sëñ bi du yëngu ci wàllum ñëpp nag dañ may seet si moom maanaam bu élection yi jub see législative wala yeneen yi nga xam ne ñu ko waxee te présidentielle mm-hmm. maanaam nit ñi dañuy ñëw ci man mm-hmm. waaw politiciens yi dañuy ñëw mm-hmm. ci man ñëpp dañuy ñëw waaye mosuma jàppale kenn ku ñëw daan naan recevoir waxtaan ak yow li may wax ak yow waaye ba fii may waxee ak yow benn lii bu ngeen ko dugalee bépp politicien bu wax ni mas naa ko jàppale na ko commentaire ci li ngeen dugal waaw mosuma jàppale kenn kon sa relation ak ñoom moo tamit ñan nga ko ci gën a amal waaw sama relation moom am naa ko ñëpp wax dëgg yàlla ñi ci gën a fës tamit ñu ngi leen di gis ci image yi demee ne mu Dame Diop ministre Diourbel la nekk sama xarit la lu yàgg mba ma dikkee ñaa tamit ci présidentielle yi ñëwoon na fa ñëwoon na sama kër Diourbel naka noonu Sonko Sonko du ñëw ci man mais day yebal ñu ñëw dafay yebal ñi ko représenté Diourbel ñu ñëw ci man waaw comme ñooñu daan laa gis ni ñi ngi ñëw ci man am naa ak ñoom kóllëre gu dëgër goo xam ne kóllëre rek kóllëre rek euh, biir la bu yàgg waaye politique baliwuñ lu tee nag bu élection yi jubee dañuy ñëw ci man am naa ay taalibe yoo xam ne nag du ma leen jox ndigal waaye ku ci nekk ku la neex mën nga koo sànni waaye du leen jox ndigal mhm. euh, kon sëñ bi comme que donte ne yënguwoo ci politique bi ñu gis ne ci mara yi ñenn ci mara yi ndaw yi dañuy daal di yëkkul ci li nga xam se ne moo di politique bi loolu tamit ban jàngat nga ci daal di politique moom dafa am ay dafa am ay ay ay ay am ay yoon yu bari politique kii politique ci lan lay politique yi xam nga politique moom lislaam moo njëkk politique waaye ci fànn politique bi ngay politique yi ci ban ban façon politique ngay politique ndax wax ju ñaaw lay doon ndax ci lii ngay politique ndax ci laa ngay politique ndax tamit li tax ngay politique intérêt du intérêt personnel mais intérêt ñëpp la sëñ bi ba tey nga baal ma bu ma dee wax ci politique bi ni ñu ko gisee kon mm-hmm. ñu nga xam se ne dañu ànd ak ci langue politique yi nga xam se ne boo leen dee xool da nga naan mbubb mi nga xam se ne seen maam joxoon na leen ko sax buñ toogee ci langue yi dafay daal di dañ ndax waxante yaak yooyu ci euh, maaraay ndaw yi ku ne xam ne ni ñu daal di politique ndax mën nga ñu see dikkaata waaw politique mooy li ma la wax sànq maanaam politique kenn ku ci nekk ci façon bi nga koy defee ak li lay yëkkati xam nga bu dee maaraak kum maanaam waruñu waroo seet rek maaraay nii nii la ñuy politiquer mm-hmm. te tudd ñi ci des ndax d'une façon maaraay ak ñeneen ñi ci des ñoo bokk système politique kon boo may laaj laaj bi da nga may laaj carrément nan nga gisee politique bu jamono ji ni mu ni mu ni mu tëdd mais boo nee maaraay ni ñuy politiquer dafay mel ne kon ñee waruñoo politique waaw man noonu laa jàppee ne laaj bi. noonu laa ko jàppee waaw. non non laajewuma ko sax comme ça noonu ndax xam naa hmm. politique ñëpp war a politique. waaye comme ça ni ma gisee. dafa am waaw damaa gis ne fi hmm. bu ma la bëggee wax hmm. tey ji du ñu tudd tur waaye gis nañ ci benn émission boo xam seen sax invité nañ ci nit ñu daggal ci benn euh, ne politique moo waral loolu. est tamit loolu tamit yow rafetlu nga ko non non non dama lay jox rek exemple comme tey ji xam te moom la langue politique di doxee ak maara tuddee problème personnel boo xam ne ñaar ñiy saagante moom ñoo ko séq maanaam jëmmi ñaar ñiy saagante ñoo ko séq seen problème mu bopp la mais politique boo demee ba ci biir au fond amul saaga waaye nit ki lim jotee ak nit ba tax nit ki waaw loolu mooy mooy li ma la wax rek nit ki jóg di politique li ko yëkkati ci politique lan la maanaam kii ban façon politique lay politique waaw maanaam tout le temps dama koy wax ni kilifa diine yi dañu war a dugal seen loxo ci biir politique bi ni ci war a dugalee seen loxo ci biir politique bi mooy xam nga bu dee kilifa diine dana jàng lan mooy yërmande parce que nit boo xamut yàlla lim jàngale ci yërmande doo mën a yërëm yërëm askan bi a am na ñu nekk ci biti ñu ñoo xamante ni ñu ngi daj lu nekk bu dee kilifa diine tey politique wut waaye li muy def di dimbali nit ñi mu waroon état te kilifa di ko def loolu moom yéen a ngi ci teg seen bët kon kilifa dafa war a politique waaye ki nga xam ne dafa jóg di politique dafa war a am façon bu mu politique yi façon bi mu war a politique yi mooy di wax wax ju baax di kilifa yi war nañ ci tàbbal seen dugg ci jubbantiwaat nit ñi ci wàllu won leen ni ñuy waxe ak ni ñuy jëfe won leen seen comportement nan la war a mel maanaam tout le temps dañ leen a war di won seen i comportement kuy kuy kuy politique nan nga war a comporté wo nan nga war a waxe saaka waru cee am ay teggin da cee war a am yërëm sax askan da cee war a am waaw loolu mooy règlement bi nga xam ne maanaam kuy politique ku nekk ci nga war a jar waaye du caagee nag diw saaga na diw diw saaga na diw déedéet mën nañu am seen problème personnel waaw mu mel ne tamit euh, comme maa ngi ci politique bi te du ma ci jug mm-hmm. dinaa la laaj euh, ni nga gisee fan yi gis nañ euh, fi mu nii li fi daal di génn ca wàllum politique waral ko muy saaga ak ndax ànd naag méngoo naag politique boo leen di ñaax lan nga leen di wax waa xam jamono ji ñu toll dafa toll ci nit ñi ñi ñi ngi ci lëli hôpital yi hôpitaux yi mm-hmm. ñii ñu ngi ci kaso yi mm-hmm. ñii ñu ngi feebar seen kër jëmmi actuellement jamono ji ñu toll du jamono yu bur wi maa ngi fi jafe-jafe yaa ngi fii ndox mi doyatul courant bi doyatul loolu mooy problème population bi parce que boo gisee nit ñi loo leen wax ñu finiti duñu dégg li ngay wax parce que li ngay wax amul lu leen intérêt maanaam mënuñoo dégg politicien wala politicien li ñu mën a li ñu mën a dégg mooy njariñ lu jóge ci ñoom war a ñëw ci askano sonn actuellement jamono ji moo tax loo leen mën di wax lu dul jàppal leen dimbali leen duñ ko mën a gis waaw kon li may ñaax ñi nga xamante si nii dañu nekk ay politiciens ñu wàññi wax ji maanaam bàyyi wax ji en attendant ba mbas mi jeex jéem a xool nu ñu jàppale askan wi jéem a xool nu ñu dimbalee askanu Sénégal mm-hmm. waaw maanaam parce que souffrir bi bari na mbas mi bari na lali hôpitaux yaa ngi fees dell kaso yaa ngi fees dell problème yi ñi nga xam ne village yi nga xam ne amuñu sax ay barabu fajukaay jigéen ñi bu ñu am doom dañuy jógee ci fu sori yëg ci sereet yi di ñëw yooyu ñu jéem a xool problème yooyu parce que ñoom ay politiciens yi mën nañu xam actualité yi nga xam ne day am ci village yi di am ci région yi di am ci département yi ñu di ko xam di régler situation yooyu dimbali nit ñi ngir yàlla ci loolu moo mm-hmm. ëpp ko doole ko di saagante kii saagante kii saagante loolu soo warul mën a nekk débat mm-hmm. waaw li war a nekk débat actuellement mooy askan wi sonn nañ nañu xool nañ leen jàppalee mm-hmm. kooku ci def tamit yaay ëpp avantage ni ko du def ba pare sëñ ji bëgg na ma dikkaat tamit ci fi nga xam si ne moom nga féete muy Diourbel comme ni nga ko waxee léegi rek Covid 19 bi bari na loo xam si ne daan na koy bari ci activité yi ba nga xam si ne daan nay laal askan wi sa askan yoo xam si ne ñoom nga nekkal foofu muy Diourbel ban taxawu nga daal di am ci ñoom. waaw mooy li ma wax social bi mooy 100 pour cent à l'aise bi avec Bamba Xaadim Rasul fan yee gis nga ni ñi ngi doon def ay cere. di ko séddale ci Touba. Diourbel Mbour Dakar. yaakaar naa su ma juumul comme man dama am naa page bu may publier lépp. loolu moo nekkoon sunu taxawaay. parce que xam nga comme cere. lu ñëpp mën a jëfandikoo la. prison yi danañ ko mën a jëfandikoo donga daara yi danañ ko mën a jëfandikoo dana mën a sakkan ci ñoom kër yi tamit dana ko mën a jëfandikoo. waaw ak yeneen ak yeneen yoo xam ne. boole nañ ko ci lu demee ni ay ay ay ay ay ay ay euh, satala. demee ni ay sijaada. demee ni ay matelas yu ndaw. waaw yooyu yëpp. ñu ngi ko doon comme nag mouvement bi doonagul mouvement boo xam ne mouvement bu am benn fond bi la. Mhm. dañuy def rek liñ tolloo mhm. waaw. Euh, duma ji xalta duma la laaj euh, tamit sa diggante ak sa relation yi nga xam te ne ñoom nga seqal waa Kër relation nga ah, bu fort rek ñoom samay bàyyi lañ waaye samay xarit lañ li ma yàlla defal Sëñ Tuubaa defal ma ko mooy mhm. damaa am ndimbal ci ñoom. Sëñ Muntaxa maa ngi koy ñaanal ma yàgg fi loolu tànd ko wér. sama bis bi may def njaareem da ci taxaw di ci yónni doomam sëñ Abo mhm. euh, sëñ Ahmadou Mokhtar mhm. ndax image yi nga xam ne bu fekkee yaa ngi suivre euh, pass bi mhm. bu màggal gi ñëwee damay dem ci kilifa yi nekk ci réew mi yëpp sëñ Abbasum Daaru Moxti daaw maam Cerno laa ko de dem naa ci moom euh, ak ñeneen kilifa dini yëpp laa seqal relation te lu ma xewle dañuy ñëw sëñ Bass Abdou Khadir day ñëw ci samay bés di ñëw ci samay màggal sëñ Cheikh Ummi sëñ daram sëñ Abdou Lahat sëñ sëñ bu samat moom sëñ soñ bu ñoom ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk te nga ma ngir sëñ Tuubaa waaw jëmmi ñi ma séqal mbàkk gi dama ciy lim ñooñu waaye ñëpp laa amal relation bu rafet waaw ñëpp laay jëflanteel ci ñëpp laay dox jëm ñëppay dox jëm ci man ci ñëpp laay dem lenteel waaw. macha allah ngeen dégg ko noonu mu nekkoon Serigne Djily Mbacké Matiley tey moom la ñu daal di toogaloon ci jotaay bi sekk moom waxtaan yu yaatu sëñ Djily lan ngay tàggoo ak askan wi xam te ne ñoo lay topp ci 24 actu. waaw xanaa kontaan rek kontaan ndax 24 euh, moom man sama sama 24 actu la. Mhm. ndax gis naa liggéey bu rafet bi bi mu def. Mhm. ndax ku ku ku xam actualité dëgg-dëgg. Mhm. xam média ni muy doxee. surtout site nga gis ni mi ngi dox. ndax publication ay publication bari na te dañu dugg ci ruq-ruqaan yi ndax man maa ngi koy suivre maa ngi koy gis ci mm, publication yi maa ngi koy gis ni mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi augmenté bu baax ni ñaa ngi koy bàyyi xel tamit ndax li am solo ngeen di génne nit ñi moo tax nit ñi di ko bàyyi xel kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mu mu dem ba nekk ay télé télé télé télé télé bu ngeen ko bëgg yeggale mu yegg fa te yàlla may leen jàmm may leen salaam ba lu ngeen ci saytu ba dugal ko ci mu neex ñëpp macha allah macha allah dégg ngeen ko noonu Serigne Djily Mbacké Matilay tey moom la ñu dalaloon ci émission bi di xam sa waay xam sa waay nag niñ leen ko waxee woon rek ñi nga xam se ne tey ji ne tey ji gis nañ ñi nga moom la defal seen réew te tey ji lu am njariñ la seen réew dinañ leen xëcc indi leen ci biir émission bi di xam sa waay tey nag kiñ ci àndaloo mooy Serigne Djily Mbacké Matilay ngeen daal di koy dégg ni mu daal di waxee euh, ci projet yu bari yoo xam se ne tey ji mu ngi koy daal di taxawal ci réew mi ñu ko ciy sant bu baax di ko gërëm moom mi nga xam se ne tey daal nañuy fekk ci jataay bi ak oyof goo xam se ne daan na koy defee ñu ko ci sant baax di ko gërëm di sant yéen ñi xam se ne tey ji yéen a ji doon topp ci 24actu point com di leen jox dox daje ci beneen jotaay jaa jëf